garab yi ñuy mélodie loolu moo waral al naqamat al muqaddasa loolu moo waral mélodie divine na ngeen baaxe artistes yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi baaxe leen leen taalif yi ndax mu leen di fóot seeni xol ndax mu yóbbu leen àjjana ku tedd ki kat fu ne wax na fa ni ba ci tarjumaani mawaahibu mu wax yàlla ne ko xaside gi def ko jigéeni àjjana ak gone àjjana di ko woyantoo ma wax leen fii barki Demba Njaay ni leen mawaahibu naafin fii madaa'ihi shaafin nii ñu koy woyee fu nekk murid yeeg ñëpp ni ñu koy woyee nekk way nit la way nit la way fii la woy adduna dinaa leen mos indi indil waa àjjana nañ koy woyee ndax ku tedd ki moo ni ko wajjahalha mimma tattaghanna daxal xuuruloo ayn wal wildaan fil janna na ko jigéen a àjjana yay waaye dinaa leen ko mës a indi ni ma leen indilee way jinne rek waaye eggaguñ ca maa dàq way ñëpp dama koy nëbb ci espace ak temps rek ak solfège suprême laa wax de waxuma solfège yii waxuma doore mi fa sol la si loolu taxul may wax mba iidi jiidi mba an ban jandan mba abbo ajji add mba unbun jundun mba eeɓe jeede loola tax may wax aw as hata ay ak allah ama an as an af ad aqar as at as ah as az ah ash moo tax may wax wasalaam bopp nit la moom bopp baax na tabaarakala tabaarakala waaw boobu moom fii la hmm. Hmm. bàyyi ko hmm. les dons que je fus au prophète et à ses compagnons sont hérités par Serigne Touba avec ses compagnons Certaines ben, choses s'avèrent incroyables à l'entendement, mais mmh. l'objet d'une déclaration est à savoir. Mmh. Les provisions du croyant à demi au jour du jugement sont la bonne intention ainsi que la bonne parole dans les règles. Mmh. Il y a longtemps que le présent fut la prédiction, hmm. mais ces déclarations jadis annoncées arrivent à point. D'autres sont en attente plus suivantes. Ces prédictions heures. Wal Fajri wa layaalin ashrin sont les propos du Seigneur. Hmm? Fajriyanā bihā que Bamba déclara. L'hymne national chanté au Sénégal. Hmm. Un jour sera chanté car nous serons à l'inaugurer. Hmm. Si vous saviez les vertus des paroles de Bamba, vous vous dresseriez résolument à remuer la pierre boueuse. Quiconque bénéficiait d'audiences dans le passé, puis oppressé par le colon récompensant mm-hmm. les uns, menaçant les autres, les convoquant, mm-hmm. la peur des hommes religieux au colon date d'il y a longtemps, mm-hmm. qu'ils soient du nom de Mbacké ou du nom de Sy, de Balla à Mame Maram dans la mêlée Bamba et Sodou Sy. jërëjëf jërëjëf nu mu tudd. juma jim mim hmm? juma naka jaañ waaw ah? jaañ de cinq la jaañ set la mooy alxayri ah juma itam kat juma itam sett la de hmm? waaw asamaan yi di juróom-ñaar la suuf yi di juróom-ñaar muy fukk ak ñeent amin nanga ma ko joxal soixante-dix mille francs CFA dégg nga baax na juma tàllal ma ñaanal yaa Cheikh tabarakallah noonu laa ko bëggee ci ñëpp xam naa waaw gis ngeen jamono ngi ñëw ci kanam nit dina waxu taalif ma ni jox leen ko nangam mu xam ah déet lu ma leen wax noté leen ba mu egsi xam nga Serigne Sylla doonte donte Cheikh Béthio nga ca dëgg sax waaye man Serigne Sylla mu Cheikh Béthio laay wax xam naa bu ma déggee bay ma mu mere ma dama ko mës a jox benn enveloppe ay dollars waaye bu mu ne ah ba jaaxal ah di la wax xam nga ah jooju ma remplacé merci Jabel Cuun ma nga ca dëgg daf naa jox enveloppe bi mu fermé xaw ma lu ca nekk ma jox ko keneen mu ne ma ah xanaa xamoo li ci ne ma ne ko ah, ubbiwu ma ko de waaye yooyu yëpp ku tedd ki rek moo ko man wax naa leen nii dafa am fu ma jëm ak yéen ba ba ngeen dalal seen xel gis ngeen fu xewal nekk ci àdduna bi fu xéewal nekk ci àdduna bi te dagan moo ko moom li muy pour ñëpp moo tax mu ko fay bàyyi du jël yëfi ma sàmba di jox ma demb du jël fi faatu di jox xawa ku ne li nga moom la lay bàyyee la lay jox kooku du kenn te kenn du moom ni mu manee ak ni mu koy defee moom doo nga ko man yàlla bu ko neexoon ñëpp am ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha kenn génnu ci benn créature génn ci waaye moo tëralee noonu ci noonu war a fax naa ban dawum fooxa ban den dara jaat niveau yi tollewu wërsëg yi tollowu gis ngeen suñu jëmm yi sax tollowu melokaan yi nuroowul waaye nag dafa bëgg ñu respecter kenn ku nekk li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom loolu la ñu ko tedd ki boolee ci benn cirque moo waral circul jawahir fi axbaari sarair radiallahu anhu Serigne Saliou jox ma recueil ba mu nekk 650 pages ne ma dee ko faral di yër ma dem di jële xale yi ci gorot yi yóbbu leen ca Lansar sumi leen benn bis ñoom ñëpp ñu def yaramu neen ñu wàññi leen ñuy 650 muy cinquante page recueil ba silkul jawahir waaye fii axbaari sarair axbaari sarair yooyu nag moo tàmbali waaw ah, jërëjëf def ñu ngi leen di sant bu baax. bu yàlla